Euh, Ousmane Sonko ak euh, les journée démb bi euh, ni mu demee monsieur le ministre gis nga ko mën nga tudd sax brutalité policière ndax après am na ci lu ko metti ba jamono ji nee nañ mi ngi clinique partem sax nee nañ sa vie est en danger wóoluwuñ ko dañ ko sax mën na am dañ ko empoisonné est-ce qu'on avait besoin ah, d'egg foofu yëpp mais vous savez de la comédie moi je pense que ça sa relation de proximité bu mu un comédien que je ne pas citer lui a appris donné des leçons de comédie mais s'il a mal je ne lui pas du mal je ne suis pas comme ça. Mm-hmm. je ne lui pas du mal je souhaite qu'il soit en bon état euh, d'affronter et de continuer la compétition si si telle est la volonté de de de de nos lois parce que aussi nous sommes dans un pays qui a des lois. Mm -hmm. mais li am solo euh, Mamadou c'est pas tout ça cest à que. nit. ñu ne la non ñu ne la mais déglu ma rek déglu ma rek xam nga yaa ngi wax nit demal tribunal 9 mais wuy ji tribunal 9 yow mii suba Mamadou bu ñu la ooyee suba tribunal da nga dem wuy ji. Mm-hmm. te doo wuy ji too créer des conditions fii laay jaar alors que yaa ngi tardé ba pare deuxième ba nga ne par force fii laay jaar bu fekkee ni violence la rek mais ñu dégg ci moom violence chaque jour ñu dégg ci moom violence. Mm-hmm. mais dem ba nga taxaw ay policier nga leen utiliser votre cervelle. loolu saaga saaga du ko raw nga taxaw seen nit ñu say nawle tey yow da nga nekk inspecteur nekkoon inspecteur des impôts. Mm-hmm. ñoom ñu si seen liggéey yàlla def leen ay policiers ñu yàlla def leen ay gendarmes ñuy aar réew mi aar sécurité réew mi aar suñuy frontière aar suñuy dundin amoo loo leen mën a traité mooy utiliser vos serveurs c' est un manque de respect c' est un manque d' humilité que on ne pas accepter loolu tamit quand même cette violence là elle est plus grave que toute yoon def la ne yoon utilisation violence la wax l'utilisation de la euh, de de, de légitime de la violence force de défense sécuritaire lañ ko may bu ñu la waxee nii jaaral nii nga bañ te amuñ beneen pexe dañ lay def par par force. dafa mel ni à l'écouter cette dafa mel ni euh, tey nga ñu convoqué le tribunal tey fi nga toog. oui bi ne na nga wuyu si demain à 9h nga bañ a ñëw juge bi nga ñëw sa kër mu ne na nga ñëw nga ne da ngay registré. force yi dañ lay dañ la koy def. maman à l'écouter cette police ak gendarmerie boobu noonu ci euh, waawu Macky Sall lañ nekk bañ ne cesse de de le nga loolu moom à la stratégie de victimisation mbir mi. dégg nañ ko moom mais comment on peut a nuñ ko mën a tuddee. quel état Mamadou quel état au monde yow nit def ay déclaration yi nii ne leen def leen deewi su ngeen dee seen yaay juraat wax ay termes yoo xam ne bëgguma ko fi répéter ban état moo dul jël ay mesures préventives. nañ ko jàpp yóbbu notifié ko mais ñu xam ne au moins am na boo ko demoon jàpp yóbbu ñu ne atteindre à sa liberté parce que dañu koo convoqué ci procès bu ko neexee mu bañ a dem bu ko neexee mu toogoon këram bu toogoon këram kenn du wax dara parce que le juge va le juger par défaut. Mhm. mais nga def ay déclarations des appels presque à l'insurrection nga wax ko état bi croiser les bras doo jël benn mesure mais justement euh, face à Ousmane Sonko on a l'impression que état bi manque na de de courage en fait parce que euh, yaa ngi koy wax sànq kàddu yu muy tenir jàpp nga ne yu garaaw la appel à l'insurrection wax nga ko euh, ay menaces ñi ngi ci yoo xam ne à peine et tout mais malgré cela euh, ak aussi mu amoon ni ñu koy waxee sax inculpation pour viol histoire du Sénégal ñu bëri fàttali ko ñu ku ñu impliqué inculpé pour viol bàyyi la ngay ngay dem avec Ousmane Sonko aussi on a l'impression que vous calculez li ngay wax ni nga ko war li ngay wax nii. justice bi nga ko war a wax. non mais a wax mooy dama jàpp ni. oui mais am nga sa point de vue justice bi. mais dama jàpp ni xam nga man am na ñoo xam nga man tous les pouvoirs muy justice muy législatif muy exécutif. Mhm. am nañu ay lu baax am nañu aussi lu fa doxul. lu fa doxul lu mel nii tamit mën nañ cee teg bët loolu moo tax ma ne la ki ngay waxal du man maa war a wax loolu mooy nit du war a appel à l'insurrection publique ñu wax di saaga nit ñi tous les jours nit ñi toog di croiser bu boobaa bu bu yàggee bu yàggee parce que fii Sénégal la. Mhm. sa waay doo ma ñëw menacé ma toog di leen seetaan. xam nga am loo mu wax sànq nee ma dans deux affaires bu ñu bàyyiwoon mu sedd ëllëg keneen mën na toog ne bu mu ji ah justice. mais Ousmane Sonko est en de de voilà d'évoluer ci langage mais dara fekk ko ci foofu laay waxee en fait. yàlla na nañ la dégg le pouvoir judiciaire yàlla na fekk ñu dégg la li nga wax. Mhm. dama jàpp aussi pour état lu nekk ci waxtam. Mhm. mais li ci gën a am solo da a ragal booy bi ci gën a am solo a lu a am solo lu a am solo lu nekk ci wax topp xam nga ku ku ragal ku ragal du la jël comme que lii daf la déposé la Ousmane Sonko bu ko neexoon bu ko force lu tax lu tax buñ ko. buñ ko ko dugalee ñu ne ko foo jëm mu ne tribunal mënoon dellu këram bu bëggoon dellu këram force de défense et sécurité këram lañ koy déposé. bu booba mm-hmm. il a choisi de ne pas répondre. Mm-hmm. et le juge va juger à défaut mais bëggul loolu. il sait que ce qu'il a dit sur Mame Mbaye est faux mm -hmm. et donc il faut gagner du temps pour qu'on ne juge pas c'est ça la stratégie elle est claire maintenant c'est pas à, euh, à, euh, au gouvernement de décider du temps de la justice ah mais la manière la manière de procéder qui, ah la manière de procéder suñu force de de de l'ordre yi monsieur le ministre la première fois dañoo kase vitre bi nit ñi euh, ñaawlu ko mais deuxième fois bi gis nañu li li arrivé jëlaat ko encore yóbbu ko euh, brutaliser ko moo avocat am nga xam ne il n'a rien à voir ak cette cette affaire maanaam affaire bi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gën a yéeg aussi ma ne bu ñu dindee aspect comédie bi suba bu la fekkee ni ñëw nañ sa kër ñu ne la wuyu jël jaaral nii nga ne jaaruma force de l'ordre dañu dajji sa buntu kër dugg fa combien de fois vous encouragez ça mais combien de, mais c'est la loi c'est dans tous les pays du monde quand tu refuses d'obéir aux forces de défense et de sécurité dañuy utiliser la force pour te faire obéir c'est dans tous les pays du monde il y a aucune émotion à se faire sur cette question il mhm. y a aucune émotion émotion léegi cas yi euh, monsieur le ministre yi ko accompagner euh, maa la koy wax sànq nga ne ma euh, du continuer parce que état dina jël ay disposition mais en ce moment démb pare par exemple on a vu euh, yu bëree bëri mais li tax nit ñi am ci ragal mooy événement mars 2021 yi deux ans après ba tey benn coupable désigné wuñ ko li tax bu ñu waatee marche encore nga ne ma état na jël ay disposition am est-ce que aussi dina daal xel pour citoyens yi mais ce qui est ce qui boo xoolee y a pas de grande mobilisation c'est de ay dem dikk ci victime yi bokk ay ay ay yoo xam ne seen yore seen scooter taal fii daw progresser c'est comme ça tous les événements mm-hmm. mais le plus moi je fais partie de ceux qui croient que ces affaires doivent être élucidées c'est des affaires doivent élucidées mënuñ ñëw def sa manifestation nga appel à manifestation mu am mort d'homme ñu ne amul responsable mm-hmm. amul fenn ça c'est le responsable on le sait parce que fait appel à des manifestations interdites lu fa mënta am yow yaa am conse yow yaa war a assumer ses